mooy bi ma dalee politik ba léegi lenn rekk laa bëgg ku ma ne waaw góor ca la may liggéey wutuma leneen na ma nit ne waaw góor rek te waaw góor boobu ma doon wut Sicap daf ci jiitu ndax bi ma amee 18 ans ba tey fii laa mës di voté musuma modifié musuma transféré boobu temps carte électeur yi papier la woon ñu bind ci bind yu bleu fi ma mës di wootee mooy centre social liberté 3 musul changé bureau bi ma mës di woote laa mës di woote ça plus de trente ans mosul changé te la may dox bi may tàmbali doon tout tànk ba léegi Sicap rek a tax def nañ fi élection locale def fi élection législative yooyu lay wax ndax yooyu lañu moom yeneen élection présidentielle yi fi jaar dafa am ku ko moom kooku moom élection yi muy président Macky Sall taxawaay ba mu cay am am na ko bay am ndam yi muy am mais ñun élection yi ñu moom mooy ay local ak législative ak ñoomin seen te ñaari élection yi ñu génn yépp dañ ci daal waaye li ma gis ci bi ñu defee gouvernement bi sunu boroom dogal nekkuñu ci mais ña ca ne ñun ak ñoom benn lañ mais li ma jot ci appel waa li ma jot ci sot waa te li ma ci gën a yéem mooy ñi nga xam ne ñoo ma gënoon compte mais wax jañu wax dama ne ndaw ràbbin a ma dese woon ndax nee naa waaw góor gëma doon wut am naa ko ndax nit ñëpp a fàq màbb nañu Zahra Guessé kon loolu sant yàlla la kon bu kenn am lu ko métti beneen bi ci des nag dégg naa ko parce que ñi fi wax ñi waxagum bari nañ coalition Benno Bokk Yaakaar wax na jeunes yi wax nañu femmes yi wax nañu ànd jéego wax na ci turu ci kàddu madame Monique Thiandoum ma koy sant di ko gërëm parce que Monique Thiandoum mii toog li mu boot ci kuréelu jigéen kenn xamul nu mu toll fii rekk ràññee naa fi présidente yu bari ay mouvement yu ama ama am solo ñu bokkoon di liggéey te tey moom muy présidente de toutes les associations féminines catholiques de l'Afrique moom moon yore woon association féminine catholique bu Sénégal mu jóge foofu ñu fal ko mu nekk présidente association des femmes catholiques de l'Afrique kon bu ñëwee toog fii nekk ak ñun moom ak mbooleem présidente yi dama bëggul lem lim parce que ñi ma fi gis bari nañ loolu aussi sant yàlla waxatuma laaj nag marché yeeg délégué yeeg waa Jokalante mag list bi daal bi ma ko gisee moom macha allah buñ ma ko joxee ci kanam mën naa ko liir foog naa moom nga yore nii Maodo jox ma ko. parce que seen naa ci tegal rek dinaa gis seen naa ci Jokalante ndam présidente baa ngi fi Binta Talla moom ak suñu présidente madame D Tawfeex mi ngi fi Kaay Baax aussi mi ngi fi marché Baraka mi ngi fi yaasalaam mi ngi fi yoonu ndam mi ngi fi les amis de Marème Faye Sall ñi ngi fi waa kër Serigne Abdou Khadre Ngor ak Jom bokk Jom Euh, randatu soxna yu jàppoo liggéey waa Liberté 6 waa Ami Collé les Sœurs Unies waa pâtisserie bi le club de randonnée donc calebasse yi bëri nañ ànd jeexoo baax yaay femme commerçante cabinet bi ñoom ñëpp ñëpp ñëpp coopérative des femmes ñëpp a ngi maanaam daal kuréel yëpp ñëw nañ comme noonu la nag dañuy sant ñëpp bàyyiwuma nag ñi nga xam ne ñoo bokk parti muy waa APR vraiment bàyyiwuma APR bàyyiwuma Benno Bokk Yaakaar bàyyiwuma responsable bàyyiwuma jeunes yi bàyyiwuma kenn kon tey lii dafa baax ñu ndokkalante li ci des aussi dégg naa ko mooy liggéey bi démb ak tey ñu koy defee dinañ ko gën a taxawal dinañ ko gën a yaatal donc loolu aussi rafetlu nañ ko ñun de toutes façon ay politique lañ certes mais nu somme avant tout des acteurs de développement kon dinañ gën a laxasaayu ba nga xam ne élan de solidarité bii nga xam ne tiise nañ ko suñu biir te yéen waa Sicap ngeen nangu ne am nañ ci taxawaay tey lañ koy gën a dëgëral tey lañ koy gën a feddal kon bu fekkee ne sargal bi pour dalaloon seen xel ci ne fi ma taxawoon démb ak bërki démb tey laa fay gën a taxaw kon na ngeen xam ne fi ma taxawoon démb ak bërki démb tey laa fay gën a taxaw te dinañu ànd ci waar bi bay liñ ci war a way bay ndax dëkk bi nag dafa jaxasoo ku ne senegal jaxasoowul seet xamoo li ngay def te dañu war a créer suñu front républicain taxawal la république taxawal Sénégal parce que loolu buñ ko defulee dinañ lor suñu bopp lor suñuy njaboot front républicain boobu nga xam ne dafa war a taxaw nag dañuy àndandoor taxaw xeex-xeex bi sakaat ca kanam rek maa ngi leen di sant di leen gërëm